dañuy sant suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne moo amee nguur di ko jox ku ko neex di sant it waa Yoff yi nga xamante ne ñoo ñu wóolu dénk ñu seen baat donc euh, loolu mooy premier sentiment bi ñu ci am beneen biit mooy woote wooteeg jàmm wooteeg booloo wooteeg jubboo si doomi Yoff yëpp ndax li nga xamante ne mooy liggéey bi ñu sumb ñu mën ko ànd liggéey ko ci anam yi mu gën a sell yi mu gën a rafete incha allah ku gis bureau bi ñu installé muy bi ak juróom-ñetti adjoint xam nga ne yof gep ci gis bopam muy deuk ciosan bi muy sanc besi ndax ñun suñu bebet moy ñu baña wax di sax sanc bes ak ak deuk ciosan ñu ne yof tout court donc tay kilifa yi ñu ci andal ñi ñi andal ci liggey bi wonna ne lolu mu ngi juddu bes ni te inshallah allah kanam la jëm ndax yof benn bop la kenn mëna ko xar askanu yof leen di wax moy pencho wat gal yego alolu mbolo ñu xool nañ koy saytoo ñun ñëpp na si ñëpp di gise seen bopp nga xam ne réeroo du am ci doxalin ak fa ñu bëgg a jëmale dëkk bi. xam nga ñi fi nekk di fi xëy indi ñu fi seen bopp ay bataaxal ay këyit moo nañu fi indi bu ñëwee it li yoon santaane ñu war ko topp dañ koy topp ci jàmm ci dal ñooñ fi pour dàq kenn. ñooñu fi pour fitnaal kenn jàmm la woote pour liggéey Yoff te si jàmm la ñuy dox incha allahu rabbi